asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa ci kilifteefu mbooleem njabootug maam na ibrahim borom daarul moxti gépp bokk yi xam ngeen ne bis bu màgg dëgg malaat na muy bis bi nga xam ne di soxna may mënatu mbàkke bintu cheikhul xadim daan wooteel sëriñ tubaa muy guddik laylatul xadar gi nga xam ne moom la sun borom wax ne xayrun min alfi shahrin bis boobu nga xam ne boo mu ko dikkalee ca daarul mooti fa la togge woon yaari ginaaram ya ca daarul naan ñëw Tuuba fekk fi magam ju tedd ja di sëriñam ba di Cheikh Mahamadul Fadal Mbàkke mu teg ko ci loxoom mu ne ko may mu ne loo jublu ci lii mu ne ko damaa toggaloon sëñ Bamba ab reer ci guddig laylatul xadar di ko ko yët te yaa fii sëriñ Bamba mu ne ko may mu ne bis bii dana dem ba ëpp say loxo da nga ci rey ay gëléem da ci rey ay ginaar bis boobu nag moo dëg dëg malaat te kuy liggéeyal sëriñ Tuuba ci alxuraan nga ko war a tàmbalee moo tax weeru koor yi balaa teru sëriñ Mouhamadul Mahfous dana ànd ak njaboot gi di sëriñ Cheikh Abdoul Ahad ak soxna Aïssatou Mbacké ñu war a daara yi séddale fa mbooleem lañ leen war a jox ba noppi nag santaane waat njàng moomu bis boobu nag moo war a dëgg malaat war a nekk fukki fan ak juróom benn ci weeru koor dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril ginnaaw bu sëriñ bi demee ci sëriñ Mouhamadul Mountakha sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jokkoo ak moom lam ko wax moom la Serigne Cheikh Abdoul Ahad fas yéene yëkkati ngir woote bis bu tedd boobu nga xam ne moom la ñuy waajal tam nekk ci sunu kanam. ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a tedd di ci jiital kii di suñu wayjur di sunu sëriñ di sëriñ Tuubaa tey ci kaf suuf mu di Cheikh mu Mountakha di ca teg mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp. di yeteeg mboolem mbokk yépp di yeteeg mboolem cheikh sëpp mboolem taalibe yëpp nda ko dara ki sëriñ si Abdou Lahad jaar ki sëriñ Bassirou Anta Niang jaar ci Alaaji Maam Cerno ba ci ki gën tuuti ci yoonu murit di dellusiwaat tey jii rek ci weer wi nga xam ne day weeru tedd di weer woo xam ne weeru yërmande la di weeru njëggal di weeru gore ci sawara di weer woo xam ne weer wu Sëriñ Tuubaa fonkoon la ba nee nañ bu jub siwaan lu ko waaye laaj dalaal naan xanaa dama ko danga koy teeroo sama gan gi guddi googu nag soxna may mën a bind xaadim rasul tànnoon ko ngir liggéeyal ci waajuram bis boobee nag moom la Cheikh Mouhamed Mahfouz di wéyal nanga xam ne noonu nii la ko soxna si daa defee waaye soxna si tam lam daan def moo di nam ko defoon ki sëriñ Fallu noonu la ko seqoon ak mbooleem ñu ko fi ñu fi wutu woon ñëpp sëñ bi itam muy sëñ Maxfuus bala moo def dara dana ba ci ki fi nekkal sëriñ Touba laaj ko ci ndigal ba mu ko defee ba noppi mu woo ma ne ma gannaaw yow yaay jiite liggéey bi yaay président comité d'organisation bi dama bëgg nag nga wax ak sëriñ bi mu xool ban doxalin la bëgg ñu doxale ko noonu ba démb di fukki fan ak ñeent ci weeru avril ci 23 heures 45 sëriñ bi ne ma mu Cheikh Mamadou taxa ne ma sëñ Mahfouz ñëw na fi laaj si ndigal jox naa ko ndigal waaye nag mbirum doxalinu màggal gi day man ak moom jotuñu cee wax ndax jataay ba dafa xat waaye nee ko lépp loo xam ne mooy njàngum alxuraan mi nañ ko yokk lépp loo xam ne mooy njàngum xasida mi nañu ko yokk lépp loo xam ne mooy bernde yi nañu ko yokk lépp loo xam ne mooy jataay yi nañu ko yaraaxal ma ne ko ah, moom de mbakke ñun sax dañ doon xalaat ba nga def benn tànt ci mbedd mi xalaat nañu itam ba nga def cérémonie officielle bëgg boo boo xamante ne ndaw yi président Macky Sall agsi nañ ci sëriñ bi mu recevoir leen kii saal ba ca suuf nekk ca HLM waxtaan fa ak ñoom ñu joxlante fa ay kaddu santante suñ mu daxaa jëlaat kaddu gi ne ma waa ji loolu yi doy sëkk ci ak wàññi daal koy ne ma loolu yi doy sëkk ci ak wàññi bu dee ziyaar yi ak daayira yi nag loolu moom kër gu ne am na ko dal ne ma dal ci tegaat moom Cheikh mu ndaxaar ne ma ne sëñ Mahfouz ñoo koy ànd ci njëlbéen bana mu jeexee nañ ko daa defee lii la ma sëriñ bi wax li nga xam ne moo jëm ci alxuraan yi ci at mujj mi mat na 17 300 kamil muy fukki junni ak juróom-ñaar ak ñett téeméer yoo xam ne sax tegal na aslëf jàng nañ ko ci li nga xam ne mooy daara alxuraan yi man na téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent yoo xam ne konte wuñ daal yi nga xam ne dañoo bootu ci ay kilifa ndax ku mel ne Cheikh Modou Bachir moom sëriñ Fallilou nekkoon jëw ñu soxna si daa sonn lool ci bis bi li nga xam ne mooy ay daara yu ne ci ginnaawam kenn xamul nu mu toll ku mel ne sëriñ Abib moom sëriñ Fallilou moom itam nekkoon kenn ki soxna si li bootu ci ay daara ci ginnaawam kenn xamul mu toll kon daara yooyu bootu ci kilifa yooyu ak ñi mel ne ñoom boo ko ci boole waatee daara yi kenn xam nu muy toll daara ju ci nekk nag sëriñ bi yu yónnee ndal ab enveloppe boo xam ne la mu ca def jëfi Serigne Touba moo ci jiitu ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko njëkk jox ne ko lii defal ma ko ci mu soog caa def moom alalam njaboot gi soog caa topp te noonu mooy ne soxna daal ndax soxna li mu ci daan def da ko daan bay ci aw mu di ko ca def kon sëriñ bi loolee def na ko ngir ñoom ñu gën a sawar ngir gën koo dëgg ngir gën koo dëgërale kaddu gi nga xamante ne bii mooy kaddu sëriñ bi la nga xam ne moo aju ci xasida itam lañ koy defee la xam ne moo aju ci berne itam noonu lañ koy defee kenn ku nekk daayira bu nekk ak ziar boo daan def man ngaa wéyal di ko def te sàmmonte ak fi nga xamante ne bii foofu fi la fi jamono ji toll. sëriñ bi mi ngi ko yëgal itam ne ki nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi mu di président de la république Macky Sall di ko yëgal itam mbooleem ñi nga xamante ne bii ñooy yëngu ci réew mi yëpp mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax na ñi nga xam ne ñoo bokk taalibe yi parce que yéene ànd ak ni nga xam ne la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxe ànd ko ca njaalbeen ba ca jeex jàmm njëkk ci jàmm mujj ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa kon nag sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal ñëpp ñi nga xamante ne bii daanañ jëf ci laylatul xadar ak fuñ mën a ne xam ne bis baa ngi noonu seen bisa soxna Maymuna mi ko sosoon dimbale jaam yi rek a taxoon mu di ko def te daana xam ne ku ne ci liggéey bu yàlla nangu da nga koy xam waaye ku gis lay liggéey bi xam ne suñu borom nangu na ko soxna Maymuna daana ko wax kon nag yàlla ci tàbbal suñu jëf ak suñu ñàq suñu borom nangu ñu ko ci biir yoo xamante ne yaatu lool yàggal fi Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa li nga xam ne mooy nuru mbas ne ci biir réew mi yal na ko yàlla génne ci réew mi génne ko Afrique génne ko ci àddina bi ba mu jeex takk sun borom nangul ñu sunu koor barakati Cheikhuna Ahmadul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.